remercie. Bienvenue dans votre plateau Rémi People qui reçoit ce samedi une très grande voix d'une des radios sénégalaises. Il s'agit de Mami Somb Sabine. tey incha allah moom la ñu am euh, privilège waxtaanal ci bile émission pour ñi nga xamante ni ñoo koy déglu sa su ne te amuñu peut-être euh, la chance de mieux la connaître tey jii kon euh, moom la ñuy waxtaanal gën a xamee ak moom et ce sera avec un grand plaisir laata ñoo jox suñu gan mu nuyoo ak ñi la joxe Rewmi FM ñu jox Jili mu jàmm sante ak ñi nga xamante ñooy ay suñu mbokk auditeur Jili salaamaaleykum. maaleykum salaam Mimi salaam jàmm ku mbedd baa ngi nuyoo leemaakum mooy wal waa dégg ko fay mi chef booy ji ji Jili der tey nag Momy Samb lañ fi dalal moom i Samb bu Zik FM mu nekk femme bu neex voix boo xam ne boo xëyee di ko déglu <laughs> doo bëgg mu jeexal sax bu paree wàcc si tës bi nga koy dégluwaat sa xol di gën a neex tey moom lañ fi dalal fas yéene yaatal ak moom ci carrière animatrice ak yeneen détails ci biir mhm. ci kanam tuuti c'est vrai hein, Mamy on l'aime de par sa voix on l'aime de par sa sympathie de sa sociabilité aussi de son humanisme man bi ma ko njëkkee bi ma njëkkee wax moom téléphone ci laa xam ne kii vraiment ni mu mel ci rajo bi noonu la mel de façon donc très naturelle alors Mamy salaamaaleykum maaleykum salaam mi maa ngi leen nuyu Mimi di nuyu euh, Djily di nuyu tous vos auditeurs de Rewmi FM di leen jaajëfal ci invitation bi di leen wax ne kontaan naa lool lool lool bokk euh, émission tey bi. Mm-hmm. ñoo la gën a bég alors ma question mooy Mamy comment tu fais pour être la plupart du temps de très bonne humeur. <laughs> Est-ce que j'ai une réponse à ça? Je pense que naturellement dama nekk nit koo xam ne je suis de bonne humeur. Je suis une personne gaie. Mhm. voilà donc euh, bëgg naa itam environnement bi ma nekk. Mhm. ci ñi nga xamante ne ñoom lay nekkal que ça soit sama famille samay xarit ñi may liggéeyandool. Mhm. ñu ñu nekk quoi ñu ñu nekk ñu nekk ay nit xam ne dañuy dund mbégte. parce que je suis une personne voilà gaie naturellement donc dama koy forcer dès le matin ma yeewoo fajar je suis bien. et est-ce euh, cela qui est dû au fait que nga bëgg a nekk comme je l'ai du dans ma publication. une puissance des ondes <laughs> Je ne dirais pas que ma prétention, ce serait d'être la puissance des ondes. Ah, euh, je dirais plutôt que je fais, une, je fais ma passion. voilà j'aime la radio euh, dafa dafa bokk ci man je pense parce que bu ñu xawoon xus tout sama parcours di nga gis ne yàlla daal mooy séddale ay mbiram voilà donc moi tant que maa ngi yeewu le matin maa ngi dem radio maa ngi nekk ci univers au studio maa ngi partager ak auditeurs yi mu ngi am benn échange benn feedback moi je suis bien l'intérêt n'est pas d'être la meilleure dans ce que je fais euh, j'essaie juste d'être professionnel jusqu'au bout des ongles et puis jéem a jox état également auditeurs yi ñuy déglu li ñu soxla pour man ma mën leen ko jox mbégte moom rek doy na ma l'animation a toujours été ta vocation vocation En fait, ce que les gens ne savent pas, Lini Nihamoul, mais moi je suis journaliste de formation. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, oui, je suis journaliste moi. Mm -hmm. Je suis euh, sortie de l'ISEC, donc avec monsieur et madame Diop, Aïssatou dit que je fais un clin d'œil en passant. Mm -hmm. Je suis sortie de cette école-là. Mm -hmm. Et donc, euh, depuis le début de ma carrière, disons en 2008, en 2008. là, a commencé DEF Radio, à la radio RMD, la radio municipale de Dakar, j'ai toujours été journaliste à la base. Présenter des éditions, aller en reportage, dem sur le terrain, je l'ai fait pendant des années. Ah oui et euh, j'ai démarré la matinale tôt aussi, depuis la RMD en 2009. Donc du coup, depuis 2009 jusqu'à maintenant, ça fait des années d'expérience. Mais je suis journaliste à la base. Animation daf ma neex rek, mhm. li ma jàng li ñu ma tàggat mooy taskatu xibaar. waaw ma koy laaj moom nee na animation da koo neex. Euh, ndax dafa toog benn jour ñu ne la euh, demal nga animé ci antenne bi ki fa nekkoon nekkatu fa euh, wala nu mu demee naka la la duggee côté animation waaw je me rappelle que bi may bi ñu may door a jox RMD matin ji li boobu y avait déjà une voix bu nekkoon RMD doon def matinale yi. Mhm. par la suite dafa dem bi mu demee. le directeur bi à l'époque Birane woo ma ne ma mami ma ne ko mu ne ma dama bëgg nga defal ma matinalu rajo ma ne ko man mii <laughs> mu ne ma def matinalu rajo parce que boobu maa ngi jàng j'étais en stage boobu sama sama première année de stage la en radio en tant que journaliste voilà donc euh, je ne savais pas que amoon naa yooyu aptitude mais moom moo gis yooyu aptitude ci man voilà et puis rajo bi ma nekkoon aussi euh, RND ñi ñi wóolu ma lool ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que ñu tàggat ma ci loolu une fois que ñu teg ma à l'antenne moi j'étais déjà dedans donc euh, c'est vrai que aujourd'hui tey ma mën ci wàllum antenne lépp lu ma mën ci wàllum euh, animation technique bi surtout en termes de matinal mm-hmm. effectivement je le leur dois rajo municipale de Dakar parce que techniquement yaa doon téye sa bopp non il y avait toujours un technicien ma doon assister mooy téye technique ci beneen côté bi beneen de l'autre côté de la baie vitrée comme booy journal ni ñu lay téye édition le technicien est là donc dafa am ay rubriques yu ñuy dugal bu rubrique bi mais fil conducteur émission bi yëpp yow yaa koy mais a le technicien qui est quand même là après nag la jàng technique au fil des années la commencé téel sama bopp technique technique euh, ma gën ko maîtriser période bi ma nekkee nostalgie ah oui parce que aussi vous avez fait la radio nostalgie c'était vers quelle année proposé je suis allée à Sopi FM la radio de de Wade. Wade oui. voilà bi rajo bi daanoo enfin bi Ablaye Wade daanu évidemment rajo bi daanu <laughs> mais mais juste après cette année-là la ma nostalgie woo bi ma nostalgie di woo c'était pour que ma nekk seen rédactrice en chef. Mm -hmm. voilà donc j'ai été la rédactrice en chef de Nostalgie euh, au fil des années may liggéey ak ñoom lañ ma donc dénk beneen poste de responsabilité muy responsable d'antenne responsable d'antenne donc il faut nga xam technique il faut nga jàng technique et il faut que nga maîtriser tout ce qui est technique de l'animation et de la radio en manière générale donc ma ci doon liggéey ak ko euh, bokk benn bureau d'ailleurs on a fait je, je suis restée à Nostalgie quatre ans quatre bonnes années quatre j'ai appris énormément de choses parce que le charme dans ce métier ngay jàng Parfaitement. Alors, la transition de reporter à animatrice, tu l'as bien consommée C'était pas trop difficile Non, parce que dès le début, j'ai toujours allié les deux. Mhm. Dès le début. En 2008, quand je démarrais, je faisais les deux. Je faisais les matinales Ouattoudougou Rédaction. ñu jox ma reportage ma dem sur le terrain ñëw bind sama papier monter diffuser. Mhm. par la suite la ma sama rédacteur en chef El Hadj Talla ne ma je veux que tu passes à la présentation du journal. Mhm. donc dama doon génn matinale pare préparer édition midi wala ñu programmer ma le soir ma ñëw def édition du soir c'est-à-dire que xam nga loo gis ci àdduna gëm-gëm la rek quand tu te dis que du bëgguma limité wu fii bëgg naa lu nekk ma am ci xam-xam lu ne ma jàng ci dara cof ci lii cof ci lee ba finalement yàlla mën na la dimbali nga nga nga am ci li li nga bëgg yépp man aujourd'hui li ma gën a mën a metti metti metti metti mooy le fait que bu ma nekkee ci bërëb ma bañ a exercer ñëw jox ma benn xañ ma benn loolu je pense que bokk na ci lu ma gën a mën a frustré wala lu ma gën a mën a metti d'accord ma Mamy euh, parlons de de tes débuts tes débuts c'était comment difficile ton intégration dans dans au sein des rédactions ça s'est fait comment difficile ouais euh, c'était pas du tout évident ce n'est jamais évident pour la toute bonne et simple raison que boo ñëwee ci métier boo xamul fekk fa ñoo xamante ne ñoo la ci ëpp expérience fuuf ñoo la gën a xam buñ la yaatalul tuuti sa nekkin dina metti boole ci buñ réew mi mooy réew moo xamante ne ni c'est-à-dire quand tu as du talent boo amee talent tuuti boo gënal góorgóorlu gën a gëm sa bopp pour nga dem dina jafe il faut nga gëm sa bopp il faut que tu aies foi en ce que tu fais et puis à force que ñi di xam ne yow mi li nga nekk nii caaxaandoo ci da nga koo gëm te dafa dëggu ci yow mm-hmm. li lay bàyyi nga dem mais moi mon intégration a été facile parce que ñi ma nekk loon ñangu nanguloon nañ ma jàngal mhm. yaataloon nañ ma pour ma nekk difficile parce que il fallait ma convaincre ñi ma nekkal mhm. convaincre sama famille que tànn bi ma tànn métier bi ma bëgg def mooy bi gën parce qu'à la base ma mère n'aimait pas ce métier là ah. ba tu sais xam nga mag ñi avant dañu amoon benn benn gis-gis benn perception ci les animateurs les journalistes en se disant que ba Euh, dañu dañu dañu dañu dañu dañu mën a dugg ci yoo xamante ne daal day xaw a yàq réputation ñii ñi tuuti ak yooyu sama yaay dafa bokkoon ci ñi ñi gëm loolu mm-hmm. donc moom elle voyait sa fille mu nekk administrateur civil ah donc moo tax bi ma amee bag dafa ma yóbbu fac droit mm-hmm. dama demal nga jàngi droit boo ma nekkee université naan attaaya de faculté <laughs> waaw njàpp yooyu yëpp année la. boobu c'était en attends ça doit être en 2004. 2004 2004 doy 2004 2005 la nekkoon université mais naan ataaya rek laa fa nekkee woon daal. te man góor ñi samay xarit la ñu mës a nekk donc góor ñi laay xaritool. yendu ci néegi. Mhm. jàpp sama njaax voilà bu ngoonee ma gàddu sama saak ñibbi. tu as fait là-bas combien d'années? j'ai fait deux ans. fac droit. oui deux ans. lu tax continuer wu parce que c'est ce que je voulais pas faire. bëgguma woon def droit. Mhm. je voulais faire de la radio je voulais être journaliste. <laughs> Donc ma mère, elle me disait, ma fille va être administrateur civil. Elle voulait te le forcer, quoi. Enfin, <laughs> ouais, forcée, pas forcée. Elle est très démocrate comme maman. wax dëgg yàlla jàmbaar la nag euh, te mës dafa mës a topp ay doom ci lu ñu bëgg mais moom son choix était que nga nekk administrateur ou nga nekk médecin loolu la bëggoon voilà c'était ça. Et, et moi je voulais faire la radio. La radio mais comment tu as pu la convaincre pour, pour qu'elle te laisse. Euh, mais rejoindre une école de journalisme. Oui, elle a compris que. Euh, nit bu bëggee dara da nga ko ciy jàppale en fait. Mm-hmm. elle a compris ça elle a compris que xëy na gëm-gëm ak pas-pas bi ma am ci ci le fait que dama war a dem defi rajo. Mm-hmm. que foofu la ma waroon a gunge parce que j'avais perdu déjà deux ans à l'université yoo xam ne avancé wu woon fenn j'avais perdu beaucoup de temps. daa cartouché woon. moo yow damaa cartouché nag. cartouché <laughs> cartouche ma nànk mhm. dawaa cartouche bu baax euh. ku fa nekkee naan attaqué xam nga ne mënoo am yenn résultat kóorute day la daan dem de temps en temps et laisse tomber quoi donc situation université ni mu meloon waxuma la ak léegi ni mel mhm. voilà donc finalement moom ndeysaan saan euh, euh, moo def ce qu'il fallait mhm. pour que mu dugg école de formation elle a payé mes premières années d'études à l'ISEC tout en me disant que xëccu nga ba bëgg a def lii Mm-hmm. lii ngay def ni fexeel ba jël ci paie mm-hmm. sinon dina am gàcce torop mm-hmm. voilà m'a lancé ce défi là et pour moi c'était un défi à relever à la RMD 5 ans par la suite tu es allé à Sopi FM mm-hmm. Nostalgie kan moo la RMD on t'a débauché ou bien comment s'est passé ce passage là vers euh, notre organe À la RMD, on m'avait débauché. Mm-hmm. J'avais même, j'en oublie mon parcours à XFM qui a, qui a été très court. XFM. Très court. Mhm. boobu moom dafa gàtt lool moom moom defuma fa. fa efflam bi nekkoon Géejawaay SHS. wallaay sopp loo xam ci sopp. booba <laughs> booba xam nga da ngay nekk ci rajo am envie découvrir leneen. tu as envie de bouger en fait. voilà c'était ça j'avais envie de bouger. Mhm. de me prouver que mën naa dépasser fii. Mhm. donc quand quand XFM m'a appelé pour les matinales encore une fois. Mm-hmm. j'y suis allée on a fait euh, quelques mois. Mm-hmm. après ma xam ne li ma bëgg def ci rajo mënuma ko def ci rajo bii. Mm-hmm. voilà parce que parce que. c'était une petite radio ou bien. non c'est pas que c'était une petite radio c'était que euh, ce qu'il fallait techniquement pour que nga nga mën a nga mën a liggéey et puis audimat bi ma soxla woon mënuma ko woon am XFM. Mm-hmm. y avait y avait y avait beaucoup de choses yoo xamante ne dafa desoon ci man. pour mu nekk rajo. bu mën a bu mën a liggéey ndaanaan mhm. comprendre nga. Mhm. voilà donc par la suite je te rappelle je suis retournée à la RMD par la suite ah. ah ouais ah oui oui oui je suis retournée là-bas j'ai fait quelque temps après nag la FM débauché. ñoo la woowaat. Euh, RMD je suis allée voir mon rédacteur en chef. Mhm. je lui ai dit j'ai envie de retourner à la radio. mu viens ta place a toujours été là Mm-hmm. on t'attend de toute façon lépp a ngi lay xaar parce que ndeysaan daf ma bëggoon na gëm ma jàppale ma Elaj Talla à l'époque voilà donc je suis retournée j'ai fait quelques mois Sopi FM m'a appelé je suis partie parce que là c'était une nouvelle aventure mm -hmm. D'accord. Et tu as aimé hein, cette aventure À Sopi FM oui. Ah oui, c'est l'une des plus belles radios, je pense, que j'ai faites de ma carrière. Mm -hmm. L'ambiance était bonne. Et puis, euh, man liguey fa ak ay animateurs, ak ay journalistes yo xamantene xamone na len depuis bu yag. Mhm. Tu vois, les chers Sar, on a mhm. travaillé ensemble mm -hmm. à cette période-là et DJ Yves, Sister Maria. Non, c'était une très belle radio. Mhm. Ba paré xam nga gaay nan ñu radio Abdoulaye Wade, le radio Abdoulaye Wade la. Nous notre défi était que ñu xamee ne d'accord certes même bu fekkee rajo wàtt la ñi fi nekk c'est des professionnels mhm. fallait ñu tolloole xibaar yi et là-bas j'étais journaliste et je présentais les matinales aussi mhm. sa ñëw Zik mhm. nu mu demee fu mu jógee fan la tàmbali kan moo la woo loolu alors sama ñëw Zik bi may dem Zik FM mu ma fekk ma jóge nostalgie dem Fem FM la radio de Koumba Gawlo Et tu étais même sa directrice de l'info. Oui, j'étais sa directrice des programmes. Des programmes, parfaitement. Ouais. J'étais sa directrice des programmes. Je la remercie en passant parce que euh, j'ai appris énormément de choses avec elle. Mm -hmm. C'était, c'était une belle expérience aussi. Mm -hmm. C'était un défi tous les jours. Mm-hmm. Kumba moom xam ngeen ni mu mel. Mm-hmm. donc ku nekk ak moom moom da ngay liggéey ak moom da ngay liggéey sans arrêt. Mm-hmm. voilà mais mu gëm ma nag wóolu ma ci ci énormément de choses. mais à un moment donné euh, il fallait que je bouge. il fallait que je bouge et Zik FM n'était pas ma cible parce que ñu bëri dañu yaakaar ne Zik FM man maa fa bëggoon a cible la woon ci man wala si Zik FM musul bokk sama plante de carrière pour dire la vérité mm-hmm. mais euh, j'ai une amie Safia Diata Diallo mm-hmm. euh, moom ma woo ne ma mami ma ne ko mu ne ma dañu soxla ku ñu defal matinal à la rajo te man sama xel ci yow rek la nekk mm-hmm. pour nga dem defi ko ak yooyu ma ne ko ah yow de boo ma woowee ci dara mënoo mën a ko mënuma la ko bañal. Hmm. voilà donc euh, mu waxtaan ak euh, Bougane <clears throat> après euh, le directeur bi woo Massamba Mbaye. Hmm. j'y suis allée les rencontrer te bi may dem di leen rencontrer booba moi j'avais déjà démissionné j'avais déjà déposé ma lettre de démission à à Fem FM. Hmm. c'est-à-dire bi may bàyyi Fem FM xaw ma woon sax dinaa dem ci rajo. Mais, mais qu'est-ce qui est dû à cette rupture de collaboration entre toi et la diva, la voix d'or, euh, Kumba Gawlo Pourquoi tu as préféré quitter euh, son groupe euh, Parce que je, je, quelle est l'expression que je peux utiliser C'est-à-dire, <laughs> on est, est arrivé. Plus, non, non, non, ça marchait. Mm -hmm. Ça marchait, les gens écoutaient, le programme était bon, était solide. Mm -hmm. mais dafa la la non non non non non non mmh. elle était pas si compliquée que ça. Bah, on dit en, on dit waaw on dit mais mais c'est-à-dire c'est une femme qui sait ce qu'elle veut xam na li mu bëgg en fait ci lépp lu muy dugg. elle est consciente que jigéen la ubbi na rajo bëgg na mu dox. Mm-hmm. donc euh, du ay sentiment mooy doxal rajo. rajo c'est la rigueur. Ouais. donc rigueur googu moom moom am na ko. Mm-hmm. mais dama demoon ba c'est-à-dire liggéey bi dafa dafa diisoon ci man torop je na plus de vie. Mm-hmm. Je n'avais plus de vie de famille, je n'avais plus de vie tout simplement. Mmh. J'étais à la radio de 4h, 5h du matin à 22h, 23h du soir pour rentrer chez moi complètement au chaos le lendemain, reprendre le même système. À un moment donné, je n'en pouvais plus. Oui. Il mhm. fallait que ma, madame défile. L'idée était que ma baille radio bi voyageait. C'était pas pour que me toque Dakar. Mhm. j'avais prévu de voyager de mhm. sortir du pays mhm. voilà donc entre temps Zik FM mhm. ñëw période bi nga xam ne déposé naa démission ba pare voilà donc euh, mais j'étais encore à la radio parce que xam nga boo déposé sa démission il faut nga xaar ba euh, war a dem nga door a dem ak yooyu ranger les dossiers surtout boo yenn yenn benn poste de responsabilité donc voilà négociation yi noonu la demee yàlla moo ko sottil mu doon vraiment lu lu lu yomb torop lu jafewul ah Et automatiquement, j'ai démissionné de Femmes et Femmes. Je pense que je suis restée quelque chose comme quelques jours. Après, j'ai pris service au niveau de Zik FM. Mm -hmm. Et comment on t'a accueilli là-bas euh, Très bien. <laughs> très bien. On m'a bien accueilli là-bas. Mm -hmm. euh, parce que les gens étaient heureux de me voir rejoindre le groupe. Mm -hmm. Voilà. Et, et Bima Faneke aussi, euh, je m'entends bien avec tout le monde. D'accord. alors mami souvent la rubrique bi nga xamante ni fa fa nga gën a calé ou bien foofu sax lañu ñu di la dégg mooy les matinales les matinales pourquoi est-ce que aujourd'hui tey bu ñu la détaché woon ci beneen ci leneen di nga ko mën a assurer. oui bien sûr. pourquoi euh, particulièrement les matinales. je ne sais pas je me pose les mêmes questions. <laughs> à un moment donné non sérieux Mimi Dji li je je vous promets. ba xàmmee la si benn waxtu. Mhm. foo dem dañuy jàpp ne waxtu voilà c' est ça c' à dire dama dem ba léegi dans l' univers des matinales. Mhm. dans ce pays mënatuñ ma ci génne. Mhm. surtout en matière de radio. Euh, booy ubbi rajo wala nga war a démarrer benn programme matinal bokk naa ci nit ñi nga xamante ne sa xel daf leen di xalaat ne kii kat soxla naa ko peut-être que c'est la voix. peut-être que c'est la manière peut-être que c'est l'habitude mm-hmm. du coup xam naa à force de d'avoir démarré ma carrière avec ça dès le début finalement dafa ma topp ba mm-hmm. j'ai un problème pour pouvoir me détacher de ça mm-hmm. parce que à chaque fois je me rappelle saa yu ma nekkee ci rajo dama naan su ma jógee fii rajo bi ma jëbati du ma fa defati matinale parce que matinale dafa metti c'est éreintant c'est très très fatigant et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de pêche et à force avec toutes ces années 12 ans 13 ans de carrière c'est pesant mais ak ma mënee ci leneen bu baax. <laughs> mënee naa ko bu baax tey jii bu ñu la indi woon rédaction Rewmi FM di nga nga mën naa di defi reportage et tout. non reportage moom nañu waxante dëgg. reportage moom mënatuma ko moom. reportage moom moom. xam nga lu ma mën reportage yu salon. te xam nga boobu kenn defatu ko reportage yu salon si. nga xam ne da ngay toog waaw nga xam ne da toog ci sa salle daal. ah ah, ah d'accord. wàcc laaj jiili laaj ci yéeg ci kaw xam nga toog bind sa ñaari papier. Mm-hmm. mën naa corriger mais aussi. Euh, ay est-ce que j'ai même besoin de descendre sur le terrain maintenant mais par contre boo muy indee rédaction Rewmi FM jox ma ay édition dama présenter à ah, ça je le peux toujours et je le peux très bien. la présentation. mais oui. tu as toujours assuré. j'ai toujours été présentatrice dans toutes les radios. <laughs> d'accord alors <laughs> mais Mamy euh, euh, une présentatrice de de de matinale ces gens ces types de rubriques de de rubriques de programmes aussi. la présentatrice, elle doit être comment Juste avoir une belle voix Ou bien il y a d'autres choses qui viennent compléter le truc Non, ce que beaucoup de gens ne savent pas, moi, une présentatrice de matinale doit être une journaliste. D'abord. La matinale, d'où c'est la tranche la plus sérieuse et la plus importante en radio. Mm -hmm. La matinale elle est gérée par la rédaction parce que les rubriques inactivées matinales, c'est des rubriques rédactionnelles. Mm -hmm. Rédaction, mais nous pouvons fournir. ñooy defar rubrique yi contenu bi ci nekk c'est de l'info mm-hmm. donc tout ce qui est info ki koy servir il faut mu xam lan la mm-hmm. tu peux pas aller prendre un animateur comme ça venir teg ko à l'antenne ne ko gérer ma matinale bi mën na la serte dugalal mais du am culture générale bi am du am réflexion bi mu war a am du am réactivité bi mu soxla le matin mm-hmm. il faut être journaliste à la base c'est un plus boo ko amee moo gën Euh, nga xam ne dina xam déjà technique yi mu war a am yépp en matière de en matière de radio en matière de traitement d'information mm-hmm. beneen bi ci topp il faut oui une certaine belle voix mm-hmm. parce que xanaa kenn doo fekk bu mel nii mm-hmm. baat tamit xam nga nga jox ko rajo bi tamit muy yee ñii ñi ñii ñi bi ni ñu njëkk def mooy fay rajo bi beneen bi ci topp mooy il faut être de très bonne humeur c'est important l'humeur est importante parce que ki lay ki lay déglu le matin mën na yeewu xol bu naqari mën na yeewu du nekk te la plupart du temps mooy am ndax dëkk bi dafa metti. c'est ça donc est-ce que ça t'arrive souvent parce que tu es une personne ah comme ah, oui, les autres. oui quand ça t'arrive tu réagis comment ou bien. mais qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école on nous apprend que quand tu as des problèmes. ne les emmène pas à la radio. ça c'est pas tout le monde. tes problèmes tu les tu les tu les laisses à la porte de la radio après sooy génn nga récupérer waat ko. mais non mais c'est-à-dire que loolu yaa yaay tàggatu ci loolu. Mm-hmm. même man mii di animer parfois je suis pas bien. Mm-hmm. mais personne ne le sent. non. Personne ne le sent. Parce que à chaque fois que je suis dans, dans le studio, je suis une autre personne. Tu te défoules, quoi. Non, non, je suis une dingue, moi, en matière de <laughs> radio. D'accord. Mais coordination, coordination, émission B, rubrique matinale B, qui coordonne ça Tu cours à gauche, à droite, ou bien il y a quelqu'un qui se charge de, d'avancer les éléments pour que tout puisse être prêt Ça se passe comment, cette procédure Écoute, la matinale de Zik FM, c'est une matinale très organisée. Mm -hmm. Mais franchement, je remercie l'équipe de la rédaction. qui fait un travail extraordinaire la rédaction fait tout quand je dis tout c'est tout c'est-à-dire que man damay ñëw le matin damay fekk euh, pardon ñu mettre ma tous les éléments en boîte donc de euh, fekk le travail déjà fait en amont rubrique yi monté nañu leen ñi ko war a def def dem nañ defi ko le rédacteur en chef il rassemble tout Et euh, après, on a un groupe où, on, où on coordonne sur euh, les éléments yi am yi amul ak yooyu yëpp. Mm-hmm. Donc euh, Birahim Touré qui est le rédacteur en chef adjoint d'ailleurs, mm -hmm. moom mm-hmm. aussi il est donc euh, il est il sait tout ce qui se passe dans la matinale. Moi aussi, jamais ma yeewu le matin avant may ñëw xam naa li may fekki. Mm-hmm. Avant may ñëw. tout est déjà en boîte. Comment tu fais pour, comment tu fais pour savoir on, on Oui, te met au courant? on me met au courant parce qu'on a un groupe déjà. boo xam ne daf may informer. Mhm. rubrique yëpp je les ai moi si je les ai avec moi avant de venir dama koy déglu damay xam contenu bi lan la damay xam kan moo wax ci lan. Mhm. donc du coup xam naa man lan ak lan laa am su ma ñëwee il me reste juste à ce que euh, bu ci nekk ma teg ko ci heure bu mu war a dem. Mhm. ànd ak commentaire yi mu war a àndal mais l'équipe de la rédaction fait tout le rédacteur en chef voilà il fait tout. On sent que dans toutes les radios, il y a cette rubrique, la matinale. C'est forcé qu'une radio l'ait. Non, pas forcé qu'une radio l'ait. Par contre, mm -hmm. ce serait bien qu'une radio puisse l'avoir. Mm -hmm. Parce que quand on se réveille le matin, on a besoin de connaître l'actualité. Même s'il n'y a pas une voix derrière. Mën na bañ a am voix, hein, mhm. une matinale de radio. Mën na bañ a am benn mamie bu fa toog. Mhm. Mën na am tout un système d'enregistrement euh, boo xamante ne c'est la technique qui le fait. et en complicité avec l'équipe de la rédaction ñii ñi bu ñu yeewoo le matin mi mi dañu bëgg xam lu xew ci réew mi donc li xew ci réew mi il faut que nit jox leen ko wala rajo bi ci boppam jox leen ko format bu mu mën ci nekk que mu am voix que mu ñàkk bañ a am voix l'idéal ce serait que le matin les gens puissent écouter de la bonne chose le matin et d'être euh, d'être euh, d'être au courant de l'actualité du pays à part tu, ta matinale tu écoutes celle de qui Euh, euh, à part ma matinale. Est-ce que tu as le Est-ce que j'écoute d'autres matinales Est-ce oui. que j'écoute d'autres matinales oui. Ça m'arrive de temps en temps de regarder une matinale. Et, et ça m'arrive euh, très rarement, souvent mes sama kër temps. C'est Kinkiliba. Je regarde avec Sarah Loya mm -hmm. de temps en temps parce que c'est un bon concept, un bon contenu mm -hmm. et une très bonne tenue d'antenne. Mhm. Am na loo ciy jàngatee looy jël dolli ko ci li nga xam yow ak li nga mën. Bien sûr, tout le temps. Euh, tout le temps. Mais j'avoue que man, je suis plus télévision européenne, mhm. j'avoue. Je regarde plus les programmes françaises. Mhm. Genre, je suis plus Air France 24, je suis plus euh, TF1. Mhm. ndax dama fa am benn turandoo boo xam ne mag moom xaw a tolloo nii dafa bëri xorom à la télé. elle passe hyper bien. et donc euh, foofu de en fait apprends plus sur la technique. je suis plus RFI par exemple. Mm parce que j'ai envie d'apprendre plus. xam nga boo booy jàngi il faut nga nga dem seeti ñi nga xam ne ñoo la ëpp xam-xam ci wàll wi. Mhm. toujours di nga am loo fa pioché. Mhm. yokk yow ci li nga am. parce que Sénégal yow gis nga am na. li nga fi mën a jàngee bëriwul. si eh mais ah. <laughs> déet bu waxati loolu. ma bu ma ruubee. laay laay la la xale bi moo garaaw yow ji li wax ci. <laughs> non Sénégal bien au contraire mais au Sénégal il y a des talents. Mhm. attention ah Sénégal on il y a de très bons animateurs. Mm -hmm. Il y en a. Il y a des, des, des chroniqueurs mm -hmm. qui sont excellents dans ce qu'ils font. c'est-à-dire mhm. réew mi dafa am ay talent nag. Mhm. dafa am ñoo xam ne dañoo aay dañoo saf-sap. Mhm. mais c'est juste que euh, ouverture d'esprit yi yenn yenn chaîne internationale yi am parfois foofu la ñu xaw a manqué ñun tuuti parce que ñun on a beaucoup de restrictions en matière de radio bul def lii bul wax li boo waxee nii am na nu mu lay jëlee nii et tout foofu nag ils ont pas de barrière donc ce qui fait que c'est beaucoup plus ouvert c'est voilà côté boobu laay waxee mais le talent il est là fii ci réew mi la nekk mhm. d'accord mais mami est-ce évident de faire la matinale se réveiller à 4 braver tous les facteurs et pour venir à la radio, euh, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà, ici, tu pouvais savoir à quel point c'est difficile. C'est hyper difficile. <laughs> Direct. non j'en ai marre j'en balaa nga xam ne j'en ai marre sama réveil sonné ma war a jóg non non non c'est que quatre pattes. laay wàccee lal bi. Mhm. parfois damay ci poto ci poto ba damay jépp sama bopp man. sérieusement je ah, non mais yow 4 heures du matin fi nelaw neexee. Uh-huh. nga dagg ko ma foi jàmbaar dëgg moo koy def. et tu te couches à quelle heure? oui ça euh, je me couche plus ou moins tard. <laughs> oui c'est-à-dire man naturellement bëriwuma nelaw mais euh, je me couche vers 22h 23h parfois ma xaw a traîner ba minuit. yow oui waaw mais tàmm ko avec l'habitude boo yeewoo qu'est-ce tu fais café tu te maquilles. non su ma yeewoo je prends ma douche. Mhm. j'ai à le temps de m'habiller que le chauffeur vient me chercher. Mhm. su ma jël see su ma yeggee rajo ba nag fa laay naanee café déglul bu baax. waaw fa laay diwoo. Mhm. sérieux waaw waaw fa laay ah, diwoo fekkee fooy diwoo. fa laay diwoo de xam naa yi may wax nii bëggaan sax mën na ma cee indi problème bu rëy problème bu rëy nga bëgg indi ci réew mi waaye fa laay diwoo man. yaa ngi dégg fa laay puudaroo fa laay crayon. fa laay def fa sama parfum yaa ngi dégg door a ubbi sama antenne. et tu fais quoi pour avoir la voix parce que quand on se réveille on sent que on a des trucs tu vois bi tu prends quelque chose pour te requinquer côté voix. rien je prends rien de spécial ma voix elle est comme ça naturellement mm. même quand je me réveille euh, je bois juste du café pour me réveiller. voilà le café chaud ça remet les neurones en place ma yeewu samay bët bu xeeku ma xoole voilà après ma doon mu daal jeex na. mais bi ngay ñëw Zik FM mu amoon benn ndaanaan bu fa nekkoon su ma juumul Lisa Georgia. Lisa Georgia. Euh, mu mel ni yow tamit voix bi doy waar garaaw nga war a ñëw remplacer ko. boo xalaatee Lisa ndaanaan gu mu nekk nu lay def. Euh, benn ah, man de xam nga. c'est-à-dire est-ce que j'y ai pensé je ne pense pas j'y ai pas pensé c'est-à-dire que réfléchiruma à l'idée de am na ko fi nekkoon maa war a ñëw mm-hmm. man li may xalaat rek su ma nekkee ci sama liggéey mooy mm-hmm. man affaire bi man lañ ko jox maa ko yor man la dama war a doxal c'est tout mm-hmm. bi xalaatoo nii ndaanaan nga fa fekkoon ndaanaan a fa nekkoon sa ndaanaan boobu gaa yi doon nañ bàyyi xel war naa ñëw def loo xam ne moom defu ko fa yooyu yëpp nekkul woon sa bopp en toute sincérité non parce que xam nga rajo moom koo fu wutu rek ndaanaan la. rajo ku dem ba ñu jox la tranche horaire. c'est parce que man dama gëm ni ndaanaan nga ci li ngay def boo xamul woon dara borom kër ga doful ba day di jël ay di la jox. mais nag euh, les hommes passent les institutions demeurent. voilà nit lu mu nekk ndaanaan ndaanaan da ngay gis keneen ku la gën a nekk ndaanaan man su ma fi jógee am na keneen ku ma gën a nekk ndaanaan kuy ñëw. koo xam ne day doxal mais doo a aay. Euh, non en tout cas man du ci bàyyi xel man personnellement. du ma ci bàyyi xel Lisa ndaanaan la. c'est une grande voix. qui a fait beaucoup de choses dans dans dans la radio euh, Zik FM am na fa passage am am na fa empreinte am. voilà donc moi je viens. pour relever un autre défi c'est-à-dire que moom dafa doxal ba benn point mu taxaw man fi mu taxaw laay commencé doxalaat ba beneen point keneen bu ñëwee yeggali yoon la rek. Mhm. yoon la rek. d'accord alors euh, Mamy euh, parlons euh, des femmes et, les médias parce que Coumba Gawlo elle avait mis en place sa radio. tey jii degré d'implication des femmes. côté médias et création de canaux. Est-ce que c'est satisfaisant Tu penses que les femmes, elles ont beaucoup encore à faire pour euh, euh, s'imposer, tu vois, ou bien tu en es satisfaite Tu parles de la position des femmes dans les médias de manière générale. Voilà. Je te répondrai que les femmes, Djigeni euh, actuellement, dans les médias, rédaction Bodem. rédaction boo dem de plus en plus d'ailleurs tu vois des postes de responsabilité ñuy dénk ay jigéen ah ci ci yenn rédaction yi yenn maison de presse yi yenn maison de communication yi tout ça parce que seen taxawaay ci liggéey bi moom solo c'est-à-dire que jigéen mooy ki nga xam ne yàlla jox na ci def na ci moom benn pas-pas ak ngëm-ngëm boo xam ne bu xësee ba nekk ci moom bu ko gëmee mën na soulever des montagnes et puis l'idée et que euh, boo nekkee jigéen la première chose à faire mooy li ngay liggéey na nga fexe ba am ci xam-xam un mm-hmm. deuxièmement boo ci amee xam-xam ba noppi na nga fexe ba góorgóorlu ba kenn du la ci raw. après nag ay poste de responsabilité yeneen yu ni mel c' est vrai que deuxième la ci yuy ñëw enfin c' est en plus si sa CV ak yeneen yu ni mel ah. mais à la base mooy fu ñu tegee sa tour rek nañ ci teg professionnel nañ ci teg mën liggéeyam nañ ci teg sérieux mm-hmm. voilà. d' accord as-tu l' ambition de mettre un de ces quatre ton groupe de presse toi aussi. C'est vrai que ça, c'est une ambition à laquelle je n'ai pas forcément réfléchi, parce que tu sais, une maison de presse, c'est des charges à ne pas en finir. Mm -hmm. C'est beaucoup de responsabilités. Peut-être que d'ici quelques années, d'accord, parce que je, moi, ça me guise moi, il me reste beaucoup de choses à faire. J'en ai fait, hein, mm -hmm. mais il me reste énormément de choses à faire encore. Mm -hmm. En attendant, j'ai d'autres projets en tête qui n'ont rien à voir avec les Quand médias. Lesquels J'ai d'autres projets en tête parce que, par exemple, mon rêve a toujours été d'ouvrir une très grande anglerie, institut de beauté pour les femmes. Mm-hmm. et ça xam naa ne bu ma yàlla dimbalee tuuti bu yàggul dara dina taxaw incha allah ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. Euh, leneen li ce serait de créer un une maison de communication un groupe de communication mais pas dans le sens de la radio. qui fait dans l'événementiel qui va faire dans l'événementiel qui fera dans la publicité. qui fera dans dans dans l'expertise communicationnelle dans les entreprises. Mm -hmm. Voilà, plus dans ce côté-là que dans dans le côté média, télé, radio ak yeneen yu ni mel. Parce que ça ne rapporte pas beaucoup de C'est pas une question de sous, je dirais c'est plus une question de passion. Mm Pas une question de sous forcément. Aujourd'hui, il faut que Maison de Presse nous pilule et il a beaucoup les radios et les télés. Il y en a beaucoup au Sénégal. Mm-hmm. bien que ñiy génn ci école yi tamit bari nañ te ñoom ñoom il faut ñu liggéey mm-hmm. mais euh, j'aimerais plus m'orienter dans quelque chose boo xamante ne man ci laay gën a mën a yëngu ci laay gën a mën a yëg sama bopp je suis plus événementiel euh, je suis plus aider les talents d'artistes qui sortent yoo xamante ne parfois du ñu am canot bi ñu war a tegu je suis plus ça qu'autre chose voilà donc je vais plus aller dans ce que moi je penche le plus door a door a door a mën a xëy na peut-être d'ici quelques années on prévoir ubbi rajo wala télé quel est ton rapport avec les artistes euh, on sent que Mamy est souvent proche des artistes c'est vrai oui je suis proche des artistes oui enfin oui dans le cadre de mon boulot tu fais dans le managing Je fais dans le management, oui. De temps en temps, je peux manager des artistes dans le cadre de, de, de, de mes activités quand, quand je ne fais rien. mais euh, c'est-à-dire j'ai de bonnes relations avec eux parce qu'il faut que ma am de relation de bonnes relations ak ñoom. ñoom ñooy liggéey dugg studio liggéey bu ñu paree ñoom ñoo ñu koy jox. ñun ñooy travailler produit bi. pour que public bi bën ci gën a jot. donc il faut nga am ak ñoom de bonnes relations. mais euh, après oui ça s'arrête là hein. ça s'arrête là. et ils te payent souvent. Ça dépend des relations que j'ai avec les personnes. Mais c'est vrai que je travaille plus pour qu'on ne me paie pas mhm. que travailler pour qu'on me paie. Ah oui. waaw loolu nag chaque jour defoo la ci man chaque jour dañ ma koy xasee dañ naan ma non non liggéey liggéey la loo séq ak nit moom nga koo liggéey ak nga koy fay et tout mais c'est vrai que man ci gis-gisu bopp sama gëm-gëm ma nekk ak en fait noonu lay doxalee pour man relation bi ma am ak Mimi bi ma am ak Djily moo ma ëppal solo xaalis bu ñu mën a séq sama diggante ak moom. Mhm. d'accord on voit que tamit euh, quand tu présentes. Euh, ta matinale, tu mets de la musique. Est-ce que tu as pris des cours de DJing <laughs> Non, j'ai jamais pris de cours de, de DJing. Mais j'ai été animatrice pendant des années. donc euh, loolu rek xam nga c'est un atout animatrice de euh, radio c'est-à-dire rajo yi ma la wax nii yëpp fa laa jaar yëpp j'ai été journaliste et animatrice t'as été dans toutes les sauces quoi. waaw damaa doy waar man yàllaa ma bindee nii sikk daal mais euh, non j'ai pas pris de cours de DJ mais je sais reconnaître le bon son. j'ai une très bonne oreille. voilà grave mélomane. c'est-à-dire ma vie si tu veux tourne autour de la musique. j'en écoute tout le temps. donc j'ai une très bonne oreille. su ma la su dégloo son bu ma la nee bii du dem rek bul sonn bul sonn du dem. ah oui ah oui oui bul d'accord waaw organes yi ban nga xam ne yow jàpp nga ni fa nga gën a tiré d'expérience ban moo la gën a marqué quoi. organes yi ma jaar yëpp nostalgie moo ma gën a marqué. parce que nostalgie c'était une radio qui n'était pas comme les autres nostalgie c'était la radio dans le vrai sens du terme. Mm-hmm. avec du matos et tout. Ah, non hormis le matos je parle de professionnalisme. Mm-hmm. je parle de technique de radio. en ce temps-là en ce qui comme. Euh, grande figure de la presse. Mais dans, de la presse oui. Des médias Oui. Non, au niveau de la rédaction, il y avait quoi Parce que moi, quand je suis qui arrivée, qui Mme Fatundoy est partie. Mm -hmm. Donc moi, on m'a recrutée là-bas, au contraire, pour que je puisse D'accord, gérer le truc. Gérer le truc, parce mm -hmm. que voilà, c'est Bimonier et tout, et quelques temps, on m'a nommée rédactrice en chef, après responsable d'antenne. Mm -hmm. Mais euh, je veux dire, quand je dis en termes de professionnalisme, c'est-à-dire nostalgie, moi, Radio Bohamantene qui respecte les techniques en termes d'animation les techniques d'antenne les normes hors norme antenne xam nga rajo dafa am yoon rajo dafa am fu ñu koy doxalee dafa am fooy duggee fooy génnee du nu la neex rek ngay voilà c'est-à-dire aujourd'hui le mythe du rajo dee mooy maanaam secret yi nekkoon ci rajo mu feeñ mais avant nit ñi dañ doon wax naan mais ces gens comment ils font que seen baat ñu leen dégg nii léegi nag secret yu bëri feeñ na mais mais nostalgie c'était le professionnalisme jusqu'au bout des ongles c'est-à-dire que pour être journaliste là-bas amoo benn niveau bi bul sonn doo nekk journaliste. pour nekk animateur là-bas amoo benn niveau bi benn technicité bi amuloo ko munoo respecter ay normes d'antenne. Mhm. doo nekk animateur foofu. Mhm. donc c'était c'était très sérieux très sélectif ci choix yi fa nekkoon et puis ci liggéey bi c'était une concurrence saine. Mhm. ñii ñi fa nekkoon dañoo xamoon li ñuy def dañ ko mënoon li ñuy def des gens comme Nadia des gens comme Coco Jean des gens comme Carl Rogers tu vois ça c'est de grands noms de la radio. boo fa nekkee forcément loo aay aay aay aay day mel ni da ngay door a commencer jàngaat. Mm-hmm. voilà cette radio m'a vraiment marqué. d'accord. Amis auditeurs je rappelle que nous recevons Sabine Sabine Samb mm-hmm. Mamy Samb lañ ko gën a xamee alors Mamy euh, que disais-je alors hormis dans la vraie vie t'es quel genre de femme. <laughs> <laughs> rakkaaju moos. quel genre de femme je suis une personne très sociale. très ouverte. fun c'est-à-dire que man ni ma mel ci rajo noonu laa mel naturellement. noonu laa mel sama kër noonu laa mel partout. ñenn ñi dinañ la ne est-ce que mami dina wax d'autres te diront ben mami jinne la quoi. mais je suis une personne free open. voilà open loolu xëy na peut-être ci yar gi la mais voilà man dama dama yaay fàllaa quoi man awma problème voilà ñu bëri dañ naan man ak Zik FM dala yàq parce que dafa génne yenn secret yi ci yow. c'est que à la base dañu xamul woon ne Zik FM dafa ma fekk ak sama secret yooyu. ba noppi des secrets comme lesquels. non pas de quand on secret cest à ne daf ma daf ma ngéwéleloo. genre sama mën a tooñ foofu la gën a feeñee comme ci tës beeg yeneen yu ni mel. Mhm. mais li ñu xamul mooy naturellement noonu laa mel en fait man. Et naturellement aussi, tu, es émotive parce que tu pleures souvent. Je suis très émotive. non, c'est vrai que nag des boo ci yàggee tuuti lu bëri daf lay kii mais je suis hyper émotive. Mhm. man moom sama sama yaay dafa may wax naa ma yaay salaat laal jooy laalul jooy man quand je suis très heureuse damay jooy. Mhm. su ma mel lu ma naqari damay jooy. Mhm. noonu laa mel jooy nag dafa maa yomb moom torop. une très belle voix à la radio mais pourquoi Mamy ne passe pas à la télé. <laughs> Ça, c'est une question que beaucoup de personnes me posent. Mhm. Pourquoi tu n'as pas encore fait de la télé Je pense que c'est le moment de le faire. Mhm. yegg si naa nag léegi ci sama carrière foo xamante ne ni defe naa euh, bu amatee beneen objectif bu ma bëgg a atteindre ce mhm. sera ça ce sera de faire un pas vers la télé. paraître sur la Sen TV. jot na sur la Sen TV oui pourquoi pas. ou euh, sur une autre chaîne de télé. l'essentiel est que j'ai fait 12 ans 13 ans de radio. doy na à un moment donné il faut que euh, man ma teggi sama tànk côté rajo tuuti. Mhm. dem vivre yeneen expérience ci télé parce que c'est un monde inconnu pour moi. Mhm. voilà dañ yàgg naa ci presse certes mais télé xaw ma fa lu bëri. d'accord bon il faut ma jàngiwaat ci loolu. mais ay rajo doo toog ñu lay contacter ku ci mel ni RFM King FM ne dal la soxla. jiili wuyul fii. <laughs> jiili bu fi indi benn problème kenn contacté ma man Bougane rek a ma contacté Bougane rek a ma ñor. <laughs> yow moom moom xam naa gars yi man Bougane rek a ma intéressé mais y' a dem ci yeneen rajo yu gën a tot. mais évidemment parce que avant may ñëw avant may ñëw Zik FM damaa nekkoon ci ay rajo su ma jugee si FM damay dem feneen. comme fan comme fan. Ah. non awma oh, cible bu yéen da ngeen a <laughs> oh, bu ne par exemple fii laa jëm fee laa jëm. yàlla yàlla moo ma tracé sama destin ma damay bàyyi yàlla mu yeggali li ci des. xam nga tey mami jigee doo jigee ki ki Zik FM di di delluwaat ay nostalgie non nostalgie amatul di dem yeneen rajo mhm. benn fi nekk sa kanam fi mu ne nii boo fekkoon dem dem na bay am. Mhm. wala ñaar muy RTS wala TFM. Mhm. yéen wuy leen ma non non c'est-à-dire que pourquoi bu ma jógee si KFM du ma dem ci yeneen rajo. ah pourquoi kon ce qui veut su ma jógee si KFM mënu ma ñëw Rewmi FM. ah si mun nga fi ah. ma dem je sais pas mënu ma dem beneen ah si. Ah, je peux je su ma jógee ci rajo Zik FM mën naa dem ci beneen rajo boo xamante ne donte. Euh, aw ma lu ma fay jàng trop en termes d' expérience mais sama expérience mën naa ko partager ak ñeneen ñi. Mhm. mën naa ko partager ak jeune génération bi loolu yëpp mën na nekk. Mhm. su ma jógee Zik FM daal. bu ko yàlla tuddee sama wër wërsëg jeex fa. dinaa dem feneen mais pour l'instant pour l'instant nii nii. Bougane Gueye Dany rek moo ma ñor instant yi foofu rek moo nekk sa xel xalaatoo leneen. waaw d'accord alors sa ñëw si tës bi nu demee da nga def émission toog xaar gars yi wala gars yi ñoo la intégré. non tës nag wax dëgg neex yàlla illage Hadj Ahmed Aïdara moo ma bëgg sentir ma ci émission parce que man à la base je voulais juste faire la matinale ñibbi. Mhm. bàyyi leen ñoom ñu yeggali mais moo ma bëgg ba yemalewu ma ak dara moom moo ma sentir ci émission moo am yëg-yëg ci man ci émission émission ba jooy rek nga fa nekkee e, e, émission bi wuy ma nag gis nga nag tës moom fa duggee tës neexoon na de tës neexoon na <laughs> mais mais mais mais mais indi naa fa sama cas ju ndaw joo xamante ne ñu ci biir <laughs> yenn saa yi ngay a xëy yow moom la parce que loolu yëpp nag rafet. Mhm. boo koy déglu da nga am envie toog di ko déglu quoi. voilà loolu yëpp nag El Hadj Ahmed Aïdara franchement et j'en profite pour le remercier moom Mansour Diop Mantoulaye toute l'équipe de Zik FM. Mhm. parce que finalement c'est une famille unie. Mhm. mais ñoom ñoo ma bëgg ci yëf yi ñoom ñoo ma sentir ci mbir mi. d'accord à travers ce journal des faits divers. bonne vision nga am ci société sénégalaise bi am tout ce qui se passe maintenant. ah réew mi ah. Mm-hmm. je le dis tous les jours ci tës bi xàmmeetuma réew mi. Mm-hmm. le Sénégal des valeurs. Mm-hmm. Sénégal bi nga xamante ne fii la euh, euh, euh, kilifa diine yi gën a mag def ay ñaan ba tey seen ay doom di woyal boobu les traditions. Sénégal gi nga xamante ne nii yenn yi ñemewuñu ko fi woon a def doona ko woon xalaat sax ci réew mi léegi lépp am na fi. xol xool taux sécurité bi nekk ci réew mi. chaque jour que Dieu fait nga dégg rey tooñ gi ci réew mi du jeex du fi xaaj xam nga euh, sans compter que yenn gëm-gëm yi nga xam ne sunu mag ñi amoon nañ ko te amatuñu ko léegi. ñun jeunes yi on a même plus de repères. c'est-à-dire ñun dañuy mbëkk di dem rek. xamuñu fu ñu jëm. et et donc franchement je suis tellement parfois peinée de voir que euh, réew mi mu ngi jël yoon boo xamante ne ni buñ ci teelul jóg. dinañu am lu ñu naqari de même bu dul ñoom ñun ñi mais sunu génération c'est-à-dire sunu doom yi ñëw ëllëg ci yan base yu solide lañ leen di teg. ndax ñu amoon nañ chance am yaay ak papa mag bu lay teg ci yoon jàngal la diine moytul lii del defee nii doomu nit ku baax doomu réew mi di nii nga war a doxalee mais est-ce que ëllëg ñun ak rythme bi ñu am nii duñu ko am déjà ngir suñu ay doom. ba pare bu ñu ñëwee ban façon réew lañ fiy fekk. donc il faut que ñu jubbanti ko léegi tout de suite maintenant. Mm-hmm. Mamy est-ce qu'il n'arrive pas que la direction des programmes de la radio Zik FM des médias sax d'une manière générale di la so di la solliciter pour avoir ton idée relativement à ton expérience. si bien sûr ça arrive. Mm que ñu ñu woo ma laaj ma sama xalaat. Mm-hmm. par yi jëm ci ci ci surtout le temps d'antenne que je gère. et ça c'est bien parce que li muy li muy li muy li muy li muy wane mooy nit ki la dénk liggéey bi dénk na la ko wóolu na la te doyloo na sa xam-xam ci lu bëri. donc loolu rek xam nga nit booy liggéey ci place moom donte fayuñu la fa dara sax boo sentiree ne am nañ yëg-yëg ci yow respecté nañ la fonk nañ la na fu la teg daf lay nga rey sa bopp. c'est ça le truc en fait. d'accord 13 de radio. Quelle a été ta plus bonne expérience dans ton métier? <laughs> Ma plus belle expérience. dans mon métier, c'est quand, euh, quand j'ai présenté ma première édition, mon premier journal. gis nga jour boobu dama doon lox ba. dama defoon ne muy mujjee faatu fa yàllaaxu <laughs> ni ma def ba ba journal bi jeex sa xaw ko. pour te dire bi ñu ma joxee matinale j'étais pas stressée hein j'étais bien. j'ai eu à aucun moment benn moment de stress mais le journal pour te dire comment il est sacré. Mm-hmm. biñ ma ko njëkkee jox damaa lox ba samay tànk di kat kat mm-hmm. mais ça a été la plus belle expérience. Mm-hmm. de ma de ma vie que je retiens vraiment. Euh, yokk ci sama yaay mi nga xamante ni gëmul woon torop ni yenn yi sax mën naa ci mën naa cee dem ba soli c'est-à-dire. yaay la joo xam ne daf ba tey jii nii daf may déglu su ma nekkee ci yenn émission daf may wone ma moytul de. del waxee ni waaw defal attention ci li c'est mon ami. Mhm. c'est ma vie. Mhm. toute ma vie tourne autour de ma mère. Mhm. sama yaay mooy sama lépp. vous vous ressemblez. pourtant je ressemble plus à mon vous père. vous avez le même visage d'Angelo. non je ressemble à mon papa. mon papa c'était un beau gosse tu vois. mais je ressemble à mon père physiquement. Euh, ci yenn jikko yi aussi sama papa laa ci ndur baax ki yaatu gi yeneen yu ni mel mais sama yaay dafay jigéenu jàmbaar en fait bu ñafee àddunaam yëpp pour ay doom njabootul ñaari doom jigéen la am kese amul góor j'ai une grande sœur je suis la plus petite maay caat di. yow la tax nga raakaaju. non non mën naa ne de mën naa ne mais vraiment dafay jigéenu jàmbaar bu ñafee pour ay doomam elle a tout fait pour ses enfants sama papa fekkeewul sama dara. sama yaay moo fekkee xëy na léegi as tuut sax ci man. donc du coup c'est quelqu'un ku may teg ci yoon nag bàyyiwu ma je veux du yaay ju bàyyi doom. xam nga genre yaay yi nga xam ne bu ñu la gisee nga sol lu bees la te waroo ko ko sax mën na la foo ko jëlee. li nga sol ni foo ko jëlee fàtte ne yow da liggéey te weer bu dee am nga sa salaire mën ngaa jënd sa bopp yenn yi boo yenn xaalis ñu won ko foo jëlee xaalis bi ah foo ko jëlee noonu la lay def wala di la déglu naa la moytu sa bopp del waxee nii moytul lii lu tax nga waxee nii yow da nga moom nit ñi. elle te recadre. tu vis toujours avec ta mère. oui toujours. t'as appartement. jëloo appartement. comme yéen bi ngeen nekkee si tës bi mam yi di wax euh, comme bërki démb xaw ma démb lu tax ñaful ndeyam di di ñaf ndeyu jàmbur genre wax yooyu après bi nga njëbee saa lu mu la non gis nga man est-ce que. yenn yi sax non yenn yi man ay sax la may def à la base. Mm-hmm. Euh, te te te te je je fais très attention nag. Mm-hmm. Euh, naturellement ci ci ci plein de choses parce que Ahmed. Mm-hmm. c'est une personne boo xamante ne nii. toujours ma ne ko yow li la ci jig jiguma man jigul keneen Ahmed il est spécial Ahmed Aïdara c'est un gar spécial tu vois donc du coup euh, vraiment non man yéen yéen yéen yéen yi moom gars du ma ci du ci du ma ci xuus lu sori parce que je sais que euh, nit la koo xamante ne daal ci gàttal sama yaay du la may dara dalay teg choc daal moom doom la goo xam yaay la goo xam ne du la bàyyi. Elle pense toujours que tu voilà c'est ça donc tu fais attention à ceci pour waxee nii del defee nii doomu nit ku baax lii doomu lii mais loolu baax na parce que xam nga ci métier bi ñu nekk bu dul sa yaay bu dul sa sœur du sa mbokk wala du sa xarit wala sa collègue koo xamante ne ñeme na la wax dëgg ne la yow yaay kan delloo si la balaa ngaa yéeg teel a naaw parce que réew pour nga naaw dafa yomb ah. nekk fi star di ko dundee c' est très facile mais quand tu as un da ngay teel a xam sa bopp teel a dammaat say laaf teel a toog. ci concurrent bu metti bi am biir Zik FM ci côté animateur. bu metti bi fa am. booy toog di ko déglu ku ci mel ni Saliou Khoule ah, euh, euh, Cheikh Sarr Alima Ndione ñeneen ak ñeneen ñi fa nekk faabi bi da ngay dégg ñuy anime mais dafa mel ni du laale seen biir yow booy toog des fois li mooy xalaat da koy xalaat ne ñii dañoo am jàpp seen biir. non est-ce que am nañ jàpp. ñoom amuñu jaba na jubóowuñ de non jubóowuñu yëguma ko yéen ma ko yëgal yéen ñaan ñi ngeen xam ne yéen lu ne yéen a koy fësal ci réew mi yëguma ko woon ci seen man man li ma yëg li ma yëg li ma gis li ma sentir eh, mooy dañuy tibbante tànk de non non non non pas mais non pas du moo tax nga ragal a jël mbalax bi jëlee ko dënn déedéet c'est que man mbalax mi mën naa ko sax de mhm. mais euh, mbalax mi à la base dugaluma foofu mhm. li ma fa dugal mooy li ma fay def tey jii buñ la woowoon pour nga nekk à leur place tu tu tu Bien sûr, je l'ai fait à plusieurs reprises. bien sûr que je pourrais assurer je suis animatrice comme eux mais yëguma yëguma noonoo gu am seen diggante yëguma ko sincèrement man li ma gis mooy c'est une équipe de jeunes boo xamante ne dafa dajale ay ndaanaan xam nga Zik fem dafa dajale ay ndaanaan c'est ça en fait boo jëlee kenn di kenn ko am na ñoo xam ne maa gën <laughs> <laughs> <laughs> yow dama bëgg nga bàyyi sama gars yi amul kenn ku fa màggee foofu ay jeunes ay frères lañu. yaa ngi dégg tout beau tout jeune te dañoo mën li ñuy def. ay jàmbaar lañu. yow tamit Cheikh Sarr mi ngay wax déjà c'est le lan l'homme de l'année 2019. Ali Mandione ñu ne c'est la meilleure animatrice moom xale bu ndaw la mais macha allah dafa am fugg ci li muy def te dafa bëgg lu muy def da koo mën ndaanaan la. Mm. Fa Vivi elle vient d'arriver yàggul dara mais moom tamit la porte sa touche donc xam nga rajo. mën na daje fukki naam naan ak juróom-ñaar ku ci nekk ngay bay sa waar ci la nga ne te du tere rajo bi dox. waaw baax na waaw ci micro bi nga xamante ne mooy sa matière de travail mës nga ci def bourde boo xamante ni tu regrettes amèrement. ah oui oui <laughs> deful bourde rajo. la man de benn jour. mës naa benn jour mës naa toog rajo di animé yaakaar na tëj naa sama micro fekk tëjuma ko may wax rek yow. baaxul ëpp. wax naa lu ëpp de ci ni nga ma xame wax naa daal man daal samay wax laa yor ba ñu woo sama directeur ne ko mais yow ma mee ngi toj rajo bi tëjul micro bi mu ngi wax rek di wax jaa ngi nii di génn di dem. xoolal bi ma jigee jigi sama turu directeur affiché ma ne waa ki li may wote lépp bi may décroché ak moom pour man sama micro tëj na de ma ne alors mu ne ma tëjal micro bi. coupé ma xool curseur bi gis mu yéeg ma daal di koy wàccee nag mu ne ma toj nga fi ma ne ko lan la danga may dàq. boobu pegg Zik FM la. non boobu Zik FM dal na ma fa une fois mais waxuma woon dara lu grave c' était court. mais euh, à nostalgie loolu. et imagine rajo mel nostalgie nga dafa burdu yu mel noonu. safoon na ma sàpp oui. mais mami tu, as des regrets ci sa bi as-tu eu des regrets. oui bien sûr ce que je regrette aujourd'hui euh, ce serait que je pense mm-hmm. que heure bi waroon na ma fekk sax ma weesu fii bu yàgg. Ah oui oui. je pense que heure bi waroon na fekk ma ma dépassé fii parce que mon objectif c'est pas de faire une carrière éternellement ici au Sénégal mon objectif avec tout le savoir-faire que j'ai expérience bi ma ci am ak euh, don bi ma ci yàlla may je pense que j'ai la possibilité de faire partie des journalistes internationaux qui vont représenter ce pays ailleurs Mhm. tout en gardant cette casquette de sénégalaise, bien entendu. Mhm. Mais j'ai envie de de d'aller voir d'aller voir ailleurs comment ça marche. Mhm. dem jàngiwaat leneen ci beneen univers de radio beneen univers de télé. voilà donc su amee regret bu ma ci am côté boobu la quoi boo xam ne vraiment dama jàpp ne heure bi certes li ma nekk maa ngi ci maa ngi ci sant yàlla alhamdulilah mais waroon naa mën a dépasé fii nag quand bu yàgg. dem nekk ci leneen. waaw mami nag góor ñi lu ñuy xaar ci dañ laa ragal wala. da ngay dàqee. góor ñi ndeysaan xam nga man ñoom ñii dañ maa tooñ sax parce que damaa dem ba finalement réew mi sama lam bi la ñuy waxtaanee daal moom moom mooy seen discussion de tous les jours non c'est-à-dire ñii dañ naan ma waa may mami lan moo tax amoo jëkkër lan moo tax sëyoo lan moo tax lan moo tax mm-hmm. mais parce que yàlla moo ñëwagul sëy mbiru yàlla suñu boroom la mm-hmm. bu jotee dina yomb tu es en couple oui je suis en couple et oui je suis amoureuse mais nag ndànk laa koy wax xam nga lu tax ma koy wax ndànk. parce que kooku may waxal je suis amoureuse sax bu génne mën naa firi laaf ba mu waroon deful la dootu ko defati <laughs> bàyyi ma wax ndànk. moom bu paree pare na moom bu paree pare na. moom bu paree pare na. d'accord. kilifa la yooyu yëpp nag jaruma leen koy wax nag. ah yéen jii kii. tu nous as parlé de ton euh, projet de d'institut de beauté. c'est ton projet à court terme ou à long terme. C'est un projet à court terme. Celui-là est un projet à court terme. Donc le riz, institut de beauté, c'est mon projet le plus immédiat. Mhm. Voilà. Après Naksou et Sololou, je voudrais ouvrir une grande agence de communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Bon, ramener, euh, voilà. Man ma certes, mais damay bayyi ñeneen liggéey ci. Mhm. voilà man damay ñëw rek juste pour superviser mais mi bàyyi ñeneen doxal. man ma nekk ci ci mbirum mbirum bagage jigéen ñi. man dinaa ci ñëw de. bu baax. waaw may da ciy ñëw jéeli da ciy ñëw. dañuy ñëw ah jéeli mi borom bagage te kii ku sikk la. xamoo ko sax <laughs> mais mami euh, euh, disons à part te défouler au micro ton travail qu'est-ce que faire dans la vie. j'adore manger. résultat j'adore manger. j'adore euh, aller donc tu tu partie de ces filles yi nga xamante ni ay chic madame man chic madame laa la tuddee. mooy dañuy voilà dañoo jongama nii. après qui qui qui ne mange pas dans des régimes et tout tu fais pas partie de non mais je suis je, mais non pas du tout c'est-à-dire que moi je m'assume comme je suis j'aime mon corps je m'aime moi personnellement ni ma mel dama dama dama ko bëgg daf maa neex je me sens bien dedans damay sol lu ma jàpp nag pour bañ luñ may xeebee ëllëg mais euh, c'est-à-dire je suis pas dans le ci psychose wu mhm. dama am yaram dama war a góorgóorlu pour jeex dama war a def régime parce que non non man su ma feebaree sax du ma jeex donc à quoi ça sert j'en ai essayé à une période di jéem a def régime pour jéem a jeex mhm. mais ça c'était plus pour faire plaisir à une autre personne que mhm. moi-même parce que moi je me sens bien je me sens bien dans ma peau. Et quel conseil pour les gens, les femmes qui ont euh, la même morphologie? Qui sont fortes, oui. mais c'est de croire en elles. Mm-hmm. et de se dire que mais dans ce monde là nit ki li mu lay bëggee nekkul ci sa physique. Mm-hmm. nit ki li mu lay bëggee mu ngi ci sa biir bopp mu ngi ci sa biir xel te mu ngi ci sa biir xol. da ngay xool góor gu baax gu ne kuy takki jabar lu mu lay wax. Mm-hmm. booy tàng da ngay tànn ku baax koo xam ne jikkoom baax na. Mm-hmm. am na valeur yi nga xamante ne yow bëgg nga kooku mu transmettre ko ay doomam donc physique bi c'est en plus. C'est voilà c'est-à-dire boo nekkee taay fin nekk taay coca. neex na présenté neex nga fopp baax na boo jongomaa nag ba mel ni mami itam nekk taay guitare et eh aussi tamit am na genre góor ñoo ah, xamante ne noonu dañ lay bëggee noonu ni nga mel noonu lañ lay bëggee duñ duñ la jaawaale keneen c'est-à-dire duñ la bokkaale ak kenn donc nit dangay ngay gëm sa bopp te sant yàlla ci ni mu la bindee ñaan yàlla mu yokk jeex na de. mami yow mën toggukat laa nag toggaloog laa pire. yow mi wuy wuy wuy kudd luus dem kudd ci noir ak luus ak loo bëgg dafa damm sama loxo bi damaa mën a togg nag. jéeg laa nag jéeg laa goo xamante ne ni maa mën a bale mën a fomp mën a togg sama kër dina xeeñ neex mhm. waaw te mën naa jaagat jaag. les dimanches tu les passes comment. Euh, la <laughs> dimanche catastrophique quand tu n'as pas de bonne tu sais xam nga ñun ndeysaan mm-hmm. bon yi léegi dañ ñoo dañ ñoo mm-hmm. mais euh, en général je fais le grand ménage chez moi mm-hmm. le dimanche parce que moom ngay am jot pour régler sa kër yenn affaires yi su ma paree damay dugg ci waañ bi hmm? su ma duggee ci waañ bi ba pare nag léeg-léeg na mën naa kalu seetaan benn film waaw wala ngoon ma sol sama carax doxantu xooli air bi dellu si waat yooyu yëpp day dundal bakket <laughs> en tout cas c'était un plaisir ñu recevoir la mami man man sa fan number one sama mag ki looy tàggoo. non je remercie Djily jinne la je te remercie yow plus que jinne donc yéen ñaari jinne yi di def émission bi gërëm naa leen santi leen bu baax a baax. et surtout may wax nag Sénégal nañu bàyyi xel bu baax. ci ci yéen xam nga lu tax. une fois benn ndaanaan bu mag dafa mës a wax ne. ma nekk ci benn émission rajo mu woote ne xale bi bàyyi leen ko xel fii ak quelques années. daañu ko dégg fu sori. yéen itam aujourd'hui de part ni ngeen may poser question ni ngeen may laaj ak ni ngeen imprégné woo j'ose vous dire sincèrement. que vous avez un talent fou bu nekk ci yéen. et surtout da ngeen am lenn loo xam ne euh, atu la. mooy ñeme ngeen ko. yëf boo ko ñemee mën ngaa dem fu sori. donc fii quelques années même pas lu yàggul dara. yal na leen suñu borom teg fu kawe kawe foo xamante ne ni damay ñëw naan sama rakk yi bindal leen ma chèque. damay ci suuf laay taxaw naan bind di waxal ji li eh mimi nañ wàcc bind ma chèque damaa war a dem doxi ci leneen. Mm-hmm. yàlla defal leen yokkute ci seen liggéey. defal ko ci seen rajo bi yëpp nag. Euh, defal ko tout le groupe de Rewmi. Mm-hmm. merci pour l'invitation ça a été un honneur et un plaisir. Mm-hmm. voilà je salue tous les auditeurs qui nous écoutent. et puis di gërëm aussi di sant man sama waa rajo sama waa groupe waa D-Média sans exception mënuma leen fàtte parce que ci man la ñu bokk euh, gërëm sama fami mention spéciale à ma mère euh, sama yaay jooju seen ñoom bari yàlla na yàlla guddal fanam mu fekkee lépp ak sama grande sœur Mame Rokhaya Samb ses enfants tout le monde tous mes amis tous ceux qui m'écoutent ñi may béggee fan si ñi ma bëgg ñi ma bañ ñëpp maa leen di siyaar di leen bëggee <laughs> jaajëf. am nga ko wala bu la ko waxee si si si léeg-léeg daf may daal. tu sais am na am na ku ma mës a envoyé vocal ne ma ma soof nga. sérieux ne ma yow da nga yaakaar ne yaa moom nit ñi soxo soxo nga ñam nga ñam <laughs> dañu bëgg a rey xoolal naa ma soof nga sa kanam gu léegi la man wax ji man. <laughs> ma ne leen man li ma metti ci wax ji mooy déedéet li ma wax ji metti la mooy sa kanam gu gi gi ma tuddal xam nga soof nga ma yooyu yëpp garaawul mais sa kanam gu xam nga kooku def ma tooñ. <laughs> <laughs> kooku frustré na ma énervé na ma di mille fois. <laughs> voilà donc day am mais nag nit ku amul noon baaxul. nit ku baax da ami noon noonu yi ñooy tax nga gën a am jom. Mm-hmm. ñooy tax nga gën a yokku ñooy tax nga gën a jëm ci kanam. donc noon yi nañu ñëw rek. Mm-hmm. nu nu nu nu nu on est là ici ñu ngi koy bëgg bu baax a baax moom mami. Mm-hmm. man moom wax dëgg yàlla bu commencé déglu émission matinale bi mun naa ni moom la. man dama daan nelaw ba midi yeewu sangu ñëw liggéey si 14h ma def émission njibbi mais léegi bu may teel a yeewu bay déglu parce que man ay temps daan naa tës. mais dama doon ñuy sonal rek waa da ngay yeewu ñu ba ci ma bokkee ba léegi damay toog di nga déglu dara du ma ci déranger. am na sax leneen lu ma doon déglu moom moo tax mu bàyyi ko déglu. ñu koy béggee bu baax a baax di rafetlu émission bi di wax ni ay fansam tey ñoo ko dalaloon. doon yaat ak moom. ndaanaan la ñu ngi topp ci ginnaawam di jàng di wax nag di ko yóbbante nag ci kabu ni ko na joxe seede yi teg ko waaw. d'accord j'espère que mami di nga wax yóbbante bi. sama mag sama gars yi man je l'aime j'aime mami voilà kon tey moom lañ dalaloon ci réew Rewmi People bi ma defee affiche bi ne mami donc la ñuy invité j'ai reçu beaucoup de message ñuy apprécier naan vraiment on adore cette fille elle a beaucoup de talent voilà en tout cas merci beaucoup Mamy merci d'avoir répondu à cette euh, invitation amis auditeurs c'était tout on se retrouve inchallah le samedi prochain ak beneen star du showbiz sénégalais restez avec nous très bon week